asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare te di leen balwaq yéen ñu baaxoo saa su ne di jàkkaarloo ñun ci waar wi TV nekk alalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul danoo ñëw ci 8 mars te bu ne mars jigéen génni liggéeykat yi la jigéen yi jàmbaar yi nekk kilifa di doomu kilifa tey nag ñu tànn ci nag ci soxna yooyu muy soxna Ndiogo ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu euh, di sant nag yàlla bu baax a baax di julli Sidina Muhammad Rasulillaahi sangub sang yi di sant Serigne Touba sunu la di ñaan yàlla nañu daje ngërëmam waaw léegi sëy bi moom lu ñuy liggéey bari na ndax céréales locales la def hmm. waaw ñu ngi def it mm, huileries yi hmm. ñu ngi def ñu ngi def it savonnerie defar saabu bu ñuy sangoo bu ñuy fóote hmm. benn kenn ku nekk du lu ñu fottaatu benn bu nekk am nañu ay diplôme dañu koo jàngal ba nu man ko waaw xam nga formation yi moom comme nii rek ñoom bu ñu xamee ne yaa ngi liggéey ci takku nga yi dañ la jàppale rek ndax dëgg yàlla maa ngi ci sant yàlla. asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant euh, maa ngi tudd Mariétou Leye doon euh, très secrétaire soxna Ndioba waaw nekk ci Lamp Fall liggéey production la ñuy def waaw dafa céréale produit yëpp daal ñu ngi koy liggéey fii lii saabu la saabu bi base bi karité lañ koy def rek ak dugub bii moom boo koy sangoo moom doo am heure doo am picc euh, sa yaram day rafet rek moom boo ko sangoo ñaari fan rek xam lu mu lay jëriñ tilim bu nekkoon sa yaram da koy dindi waaw léegi couleur yi tax ñuy boo ñuy ñuy wute ci tiir gi la parce que tiir gi yenn saay bii nga def tiir lu bare bii nga def euh, nga wàññi tiir bi mais base bi lépp lañ koy liggéeyee lépp lañ koy dee ak it li muy li muy li muy jëriñ nit loolu la lay jëriñ waaw lii brisure mboq la mboq la bii mën naa defar suum bi mën naa defar ceeb waaw loo ci bëgg a defar rek mën nga ko jël defar waaw kii mboq la waaw moom mboq la suñu mboq la bi araw la araw mil la waaw mii araw la araw bu rafet la ci lamp faal lañ koy defaree waaw bii moom sara yàlla waaw bii cere la bii cere la moom it aussi da nga koy laal ba pare fii ne nii da ngay tàngal sa def rek def ci am sa cere waaw gis nga mu ngi nii waaw 500 grammes bi liibar la ah, waaw te lu bari la mën a def moom cher na parce que ñun ñu ngi koy jaay cent rek liibar bi 600 léegi kilo bi cent bu dee araw bi araw bi ñu ngi koy jaay 800 waaw kilo bi waaw bi waaw kilo bi 400. waaw bii 500 grammes la. waaw bii 500 grammes léegi bii kilo bi ñu ngi koy jaay 800. waaw libre bi doon 400. Ah, bii tamit. waaw bii bii la. Ah, waaw kii gofio la moom dafa baax ci xale. ma ngoog di jéeg ji jël ndax dana bëggatuñu daal kenn ku jeex. Mm-hmm. wala nga yore doom ju xiiban. wala bii gofio la. bi groupement bi ñu koy. bi moom yaa yëkkati bu baax. que Diofior bii moom. waaw ah, ci bu ci bañ wujj eh, bii ngay lekk ma bii dafa baax ci yaram te kat gis nga ni ñuy defaree ñun suñu gof yoo da ngay tàngal ndox rek sotti ci def sa soow wala sa meew. moom doo togg daal. waaw am na gerte am na mboq am na ceeb am na dugub. lépp a ngi ci daal moom euh, base bi lu ci bare leen ko euh, dafa am vitamine waaw moom lañ ko liggéeyee nii waaw. mooy gaufure bi. ñoom naag yéeg gi dañ koy jëndee. bii du taxaw bii kay defe naa ni moom wala doom ju xiiboon moom ndax sa doom bu xiiboonee moom doo tala toppatoo kenn waaw. waaw bii bii bii kii la caagri bii caagri la gis nga bu ne 500 grammes lañ ko def waaw caagri bi da ngay tàngal ndox rek def ci wala nga kaas tey daal def li nga bëgg a def def sa soow bu la neexee nga defal sa ngalax moom lépp la mën a defar gis nga waaw waaw kafe waaw buy waaw araw baa ngi nii céréale bi waaw sanqal a gis waaw cere min waaw sanqal bi ñëwul de dinañ defar sanqal yi aussi waaw dinañ defar sanqal bii bii nebedaay la ah, nebedaay baax na ci jabetik waaw booy lekk rek di ci def lekkaale ko moom gis nga nebedaay la gis nga nebedaay def ko poudre waaw dafa sell macha moom waaw kii bisaab la bisaab bi moom da ngay sotti sa ndox rek am couleur bi nga li nga li parce que lii mën na defar paan mën na def paanu bisaab. kenn du sonnati di xooj déedéet sonn moom xam naa xale yi ñoom noppalu nañ léegi. mag ñee sonnoon waaye xale yi léegi kenn sonnatul gis nga bii jinjeer la aussi. waaw ci koor gi ñu jëm moom xam naa jinjeer moom dina noppal da ngay tàngal ndox rek sotti. te moom cherul base bi nga déedéet cheru. cheru parce que yii yëpp ay 1000 francs lañ koy jaayee. waaw yii 1000 francs lañ koy jaayee bisaab aussi bii buy la gis nga kii buy la gis nga buy bi moom 1000 francs la gis nga buy bi ñu ko liggéeyee moom da ngay tibb rek def bisaab bi ngay xooj segg waaye buy bi moom da ngay tibb rek xooyee euh, gis nga bii ñebbe la ñu bëgg a akara ñebbe en poudre gis nga nii gis nga ñebbe bi ni mu noppalee mm. da ngay jël rek xooj xoojee def tuuti levure rek bu la neexee nga xooj lu bare def sa frigo boo bëggee lakk rek nga génne lakk li nga soxla delloo waat ko déedéet dootoo riij riij moom defatuñ ko moom ah, waaw bii lii moom café Touba la moom moom gis nga café Touba bi nu mu rafetee mu ngoor moom bii moom ku ko ñam dootoo jënd fenn café fii rek ngay jënd see café ci Lamp Fall takku liggéey gis nga suñu café bi waaw macha allah waaw café nii groupement bi dañuy defal cere ñebbe joo xam ne ji macha allah dañ koy laaloo yow léegi da ngay tàngal sa ndox rek def ci togg lu ñeex bi nga bëgg na nga def ko ci am nañ cere ñebbe. am na nañu sànqal waaw sànqal ak ñebbe caagri ñebbe sax am nañ ko am nañu sànqal ñel ak doo ci bëgg a def rek am na fi lépp a ngi fi waaw fii moom groupe groupe groupement bi moom Lamp Fall takku liggéey tey dañuy cuub gis nga lii ay darab la kon nga gis nga darab yi. gis nga darab yi dañuy cuub waaw gis nga dañuy cuub defar ay darab te darab yu mag la ñuy doon defar ay napp waaw lépp la ñuy defar fii eh, ay robb abbaye maylu sud aussi dañ koy defar eh, grand bu lesse aussi dañ koy cuub fii moom Lamp Fall takku liggéey def naa lépp fi am gis nga mu ngi nii waaw te it aussi dañuy segal dañuy segal dëwlin dëwlin dañuy segal dëwlin bu macha allah la ñuy defar suñu dëwlin te gerte kese lañ koy defar dañuy defar tiga dege dañuy defar naflaay lépp lu ñu soxla rek ci Lamp Fall Takku Liggéey lépp ngi fi lépp ngi fi waaw. fii daal moom transformatrice yi ñoo macha allah loolu la ñuy liggéey. mu loo xam ne da ngeen koy liggéey di ko jaayante seen biir. am na lu soxla sax dañuy gën waaw fii fii fii moom lu nit soxla rek mi ngi fi. waaw ndaxte képp ku soxla yit da ngay ñëw jënd te it soxna si li mu soxla it aussi day ñëw ku ñëw fii mu jaay la. même bu nekkee koo xam ne daa bëgg nekk ndaw ci dëkk bi te bëgg liggéey bu leen contacter tamit. waaw parce que soxna si mi ngi ñuy toppal toppatoo ay formation fii ne may nañ ñu ay formation yoo xam ne macha allah fii ne nii groupement bu ne euh, formation boo bëgg rek fii ne nii maa ñu ngi remplir dossier yi pour ñu mën a def si formation te ku ci nekk sa koñ lañ la koy may nga defar ko ndax nga am loo mën a jàppale sa waa même bu fekkee damaa bëgg a jaayaat gis jii buy bi moom dana baax ak bisaab bi. waaw su ma dikkee danañ ma ko jox ma jaayawaat ko am ci dara donte bokk ma ci kuréel gi. waaw ku ñëw rek moom daal soxna si mi ngi fi moom wax dëgg yàlla moom entreprise la yor te nar a jàpp jàppale waa dëkk bi waaw ndaxte moom ni ni ni ni ay maamam taxawoon rek la taxaw ci dikk bi waaw pour dimbalee jigéen ñi te ku fi dikk rek képp ku dégg sax li may wax xam ne li may wax dëgg la ndax man fortaatu wu ma ci liwu ma ci leen waaw képp ku ñëw rek mu jàppale la incha allah. waaw man daal li may ñaax jigéen ñi nangoo liggéey jigéen moom boo nangoo liggéey doo ñàkk dara ak fulla ak fayda it gëm it sa bopp waaw liggéey moom boo ko nangoo def doo doo taxawaalu doo def dara te jigéen ñi it ku nekk danga war a xoolaat sa bopp gëm sa bopp su ma sañoon képp ku mu doon rek di jigéen rek war nga am ak fulla ak fayda nangoo liggéey boo nangoo liggéey doo jooy dara waaw te it doo wuti dara waaw képp kuy liggéey doo wuti dara doo jooy dara loolu rek tey ñaanal nag soxna si ndaxte man su ma yeboon ni fukki at ak juróom-ñaar mi ngi ànd formation bi ma jëkk a def muy muy muy huilerie moom moo ma fa yóbbu. ni gox aussi moo ma ko def wax dëgg yàlla moom te képp ku mu doon rek réew mi yëpp fii ne tuubaat ku ci nekk rek ku dégg li ma lay wax ñu ci bari encadré na la ba lépp nga def ko waaye nag boo nangoo liggéey it doo sonn. waaw ndaxte lu nekk la ñu jàppale wax dëgg yàlla te lu nekk mi ngi ñu ciy dimbale te boole ci alalam waaw alalam it mi ngi ñu ci boole diñ ci jàppale di ko ñaanal gudd fan ak wér waaw ba lépp lu mu ñëwee ci dëkku maamam bi yàlla may ko kattan ak doole bu mu àggale ko jàmm ci barke Muhammad barke mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen jaare te di leen balaax yéen ñu baax ko saa ne di jàkkaarloo ñun ci Waarwi TV nekk alul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nag fii Waarwi TV toog bu fi toogee war na fee mën a nekk ndax dañoo ñëw ci 8 mars te bu ne 8 mars jigéen liggéeykat yi la jigéen ñi jàmbaar yi nekk kilifa di doomu kilifa nekk ak kilifa jël lépp nag bàyyi ko def ko dekk mu def taalibe nekk soxna Ndiobo Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba bokk ci jàmbaar yi nga xam ne jàmbaar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la bokk nekk liggéeykat di jàppale ay ndaw di jàppale ay mag ñu fekk ko fii nag ci biir këram ci 8 mars bi nag bëgg nag mboolem nag koo xam ne yaa ngi jàkkaroog Waarwi TV di seetaan buñ ci jógee nag ñu roy ci bu baax cax li mu doon mënoon naa jël lépp rek euh, jël ku teg santa wi waaye soxna si dafa jël sant wi teg fii yëpp ñun nag mu ànd ak ñun def ñu ay doom nekk ñu nekk sax taalibe macha allah dangay xaw am sax kersa ci moom ci mbaax goo xam ne yàlla baaxal na ko ko ak yiw ak it takku liggéey ndax lu waaye mën di def rek lu dul liggéey liggéey ko gën tey nag ñu tànn léegi ci soxna yooyu muy soxna Ndiogo ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu salaamaaleykum yaa ngi ah, waaleykum salaam wa rahmatulah. man Diarra maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Waarwi TV yëpp di bi euh, di sant nag yàlla bu baax a baax di julli Sidina Muhammad Rasulullah sangu sang yi di sant Serigne Touba sunu wasila di ñaan yàlla nañu daje ngërëmam di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na fi yàlla yàggal lool te mu wér. ñu bokk moom liggéey sëñ Touba bi ba am ci ndam di siyaare njaboot sëñ Touba gi yëpp waaye nag maa ngi siyaare njaboot si xew gi yëpp di ko jaare sëñ Fall Fall ma ah, di santit nag bu baax a baax samay waajur waaye di gërëm ñi nga xam ne ni ñoom laa àndal di liggéey ah, muy groupe Lamp Fall Takku Liggéey di groupe bu ànd groupe bu déggoo boo xam ne nii kenn ku nekk liggéey rek moom nga moo la ñor liggéey rek nga bëgg ah ma di ko sant yàlla nag di leen sant di leen ñaanal ah li ñu li ñu mëbët di ko bëgg ci réew mi seen njaboot yàlla na jàppandi lool ci barka yonent bi ak sëñ Tuubaa suñu wasila maa ngi nuyu ñëpp siyaare ñëpp waaw wax maam Jaara tax ma créé ko mooy nit ku yiw su juddoo fekk ay waajuram nekk ci li ñu war a nekk su defee la ko war daa war a roy ay waajuram te man dama xàmmi rek gis sama yaay ma gis ko muy cuub waaw di gis ko muy ràbb ay sër njaabu ma màgg ci ci sama yaay ma mënoon wax naan ma nit ku lay liggéey ndax ne nit ku bu liggéeyut du faj soxla ci ci nit ki daa war a faj soxlam faj soxla te loolu liggéey moo koy maye ah, ma sant ko yàlla na di ko ñaanal yàlla na ko sunu borom defal ay daraja fa mu tëdd ndax man mooy sama royuwaay lépp lu may def rek moom laay jiital moom laay xool ah, yoon mi ci lay jaar di ko sant di ko sante nag yàlla bu baax santit nag ki ma yàlla booleel xañuma ci dara ndaxte nit mënoon naa liggéey ki mu nekkal gàllankoor ko waaye wax dëgg yàlla gàllankoor ma maa ngi koy sant yaa maa ngi koy sant sant nañ ñi groupe bi waaw ndax bi it jàppal nañ ma depuis ba ma créé Lamp Fall ba léegi maa ngi ko GIE bi ma maa ngi ko am maa ngi ko am 2001 wante nag nag liggéey bi dëgg-dëgg bi mu démarré rek léegi moom 2017 la Mm-hmm. la la tàmbali waaye ba tàmbalee léegi boo ñu ma amoon ñi jiitu woon rek ba léegi ñoo ci nekk amul benn changement ñi may waroon ñi may liggéey ba léegi ñoom xëy na nit ñi ñee ñi dooleeku waaye nag ñi nga xam ne ñoo jiitu yor liggéey bi moom ba tey ñoom ñoo fi nekk kanam yoon ñoo fi nekk koo sant yàlla la waaw léegi sëy bi moom lu ñuy liggéey bari na ndax céréales locales la ñuy def mm-hmm. waaw ñi ngi def it mm, huileries ñi ngi def it ñi ngi def it savonnerie defar saabu bu ñuy sangoo bu ñuy fóote ñu ngi suub ay dorop ay napp taabal di tuub ay ay mbubu waaw ñu ngi defarit eh, yoo xam ne ni daal ay ay siri si ndax loolu lépp boo xoolee benn kenn ku nekk du lu ñu fottaatu benn bu nekk am nañu ay diplôme dañu koo jàngal ba nu man ko waaw eh, kon ñu ngi sant yàlla ci loolu ndax amul benn buñ ci fottaat ndax benn bu nekk li ma la limal nii boo ma ci laajee sa boo ma ci laaj dëppaloon may ma jox la ko incha allah yàlla yàlla loolu yàlla la ñi ma àndali koo ci laaj diplôme boobu moo jox la ko waaw dañuy dem dëppam réew am am nañu am nañu am amaguma foire nag ndax daaw sax déposé woon naa wante mujjul àntu wante nag ñi maa ngi biti réew mi maa ngi fay jaay ndax am naa fa ay client waaw day dem su ma defaree am ñu ko jënd bu ñu ko yóbboo foofu wax dëgg am ñooñu xam nañu sama produit bu baax ñu ngi ko jënd réew mi it macha allah maa sant yàlla. maa ngi koy jaay am am naa sax fi nii waa seen seen teraanga sax am naa ñoom contrat maa ngi leen di jaay <laughs> waaw liggéey bi yaatu dëgg ndax su ma sañoon ni mu gën a yaatu ndaxte ay jigéen lañu ci jigéen dafa war a liggéey ndax jigéen li war ci moom dafa bari. jigéen mooy mooy ndey mooy bàyyi parce que ndax jigéen rek moo moo sañ maanaam doomam doomam réeru réeru mu bu bu tëddee du nelaw loolu jigéen rek la ko yàlla dégleel jigéen moo sañ borom këram wéré di wala dara mu mu bàyyi la mu def lépp ànd moom kon jigéen mooy lépp kon bu jigéen bu da xalam da leeral réew mu tege ci waaw groupement bi groupement Serigne Touba la amul frontière ñépp ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk ku ñëw bëgg bëgg bëgg produit bu neexee jël jaay soo jaayee boo ñëwee boo ñëwee jënd ñu wàññil la def ko defal la defal la euh, prix bi prix boo xam ne bokk prix bi ñuy jaayee par benn nga dem am ci sa dara ubbi nañ suñu buntu ku bëgg ñu bokk ak ñu bokk. ku bëgg a bokk xanaa da ngay ñëw adhéré rek bokk ci groupement bi. waaw nee na xanaa ñuy jaay faaw ñu am am nañ carte membre ku ñëw bokk jël sa carte membre bokk ci groupement bi. Mhm. waaw xam nga formation yi moom comme nii rek ñoom bu ñu xamee ne yaa ngi liggéey ci takku nga yéen dañ lay jàppale rek dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ndax it wax dëgg am nañu formation ndax groupement bi parce que boo xoolee lu mat. lu mat euh, deux cent yi quelque am nañ diplôme waaw am nañ am nañ te diplôme yi ñi yi ETA la yi ANFP la yi 3FPT lépp diplôme diplôme bu bu la ñoom ñëpp kenn ku nekk ñi ci sawar sax am nañu mal ay 4 ba cinq diplôme kon loolu it euh, pas-pas la rek hmm, pas-pas la rek ndax euh, formation moom ñu koy maye amuñ ci xeej amuñ ci seen bu kon gis ngay liggéey rek dana koy jox waaw loolu rek la du maanaam bëgg-bëgg la rek lépp metti na waaye nag ba sant yàlla rek waaw ñu sant yàlla rek ndax naan loo gëm ba yàggee ma gëm loola te dañ koo gëm ñu gëm ne dañoo war a liggéey xëy na loolu nag dina dem ba yàlla mas a dikk mu defal ñu ci waaw xam nga ministre de moom wax dëgg yàlla sunu mbokk la sunu xarit la suñu lépp la it xam naa ne it bëgg na jigéen ju ju takku bëgg na jigéen juy liggéey it ndax ci la nekk mm-hmm. ah, kon moom dañ koy jox sunu bopp rek taral ko suñuy loxo waaw di ko xamal ne ñun moom ay liggéeykat lañu ah, bëgg nañu it ku ñu jàppale bu baax ndax ay jigéen rek a fi nekk te jigéen ñi moo moo moo jiite jigéen ñëpp. kon moom nañ ko taaral suñu loxo rek di ko ne nga liggéey bi de moom day moom da nekk di keneen nekkale comme ma su fekkee ne seere naa koy dama koy sant yàlla sant sëñ xam ne ku moom la yàlla booleel ma am ñoo xam nii ànd nañu man di di di te te lu ma nekk ñu nekk ja mhm. xëy na loolu moo ma may ndimbal loolu ba tax ma eh, maa ngi sant daal ndax équipe bi ñu ngi liggéey mayit bàyyiwu ma leen ko ndax bu ñu bu ñuy liggéey dama ànd ak ñoom def mhm. comme li ma wax jigéen jigéen dafa am solo ci société jigéen mooy lépp jigéen su baaxee lépp baax ndax jigéen mooy jigéen mooy jur moo yor même jigéen borom kër sax jigéen bu amee jigéen ju baax day dem kon jigéen dafa war a am fulla am fayda am boppam xam boppam xam mooy kan man su ma gisee jigéen ñi nga xam ne nii dañoo jàpp dañoo war a foyee seen bopp wala dañoo war a def neneen ñoo xam ne nii lu liggéey rek moo tax ma jaaxal ndaxte suñu borom bari na yërmaande bari sutura képp ku ku liggéey suñu borom dina la dimbali ndax liggéey sax xëy na toxte bari la waaye nag daan xel ndaxte sama maam daan wax naan liggéey dindikum maanaam waa dindikum kii kumpa la dindi kumpa ndaxte soo liggéeyee soo amee ñu ne ay li yéwén de jàmbaar la wax dëgg yàlla lii mu am mérité na soo amutul ñu ne wax dëgg yàlla de daa amul waaye def na lu man kon liggéey dafa war kon ñun jigéen ñi dañoo war a góorgóorlu sàmm suñu bopp sàmm suñu diine hmm, te liggéey liggéey jaamoo ko yàlla ndax liggéey première jaamu yàlla gannaaw bu jaamu yàlla noppi liggéey moo ci topp di taalal foo ku ne nga ñaan liggéey moo gën ci ñi kon maa ngi ñaax jigéen ñëpp ñu àndandoo xam ne jigéen wala rëm dafa dafa dafa riis waaw ñu ànd xam suñu bopp xam ñooy kan am fulla am fayda ca ca liggéey jariñu ci moo gën yu baree bari ñu la ciy dégg waa ñuy sant bu baax a baax nag di ñaanal euh, jigéen ñëpp nag jigéen ñëpp ñaan suñu borom defal ñu jàmm di la ñaanal yéen it yéen Waarwi di la ñaanal nga dund ba mag ndax xale bu sa loxo set nga nit ku baax nga waaw maa ngi lay sant bu baax di ñaanal sama doom ji nga àndal moom it di ko ñaanal moom it yàlla defal ko jàmm te barkeel liggéeyam ma leen sant bu baax jërëjëf. di leen sànq mbokk internet yi nga xam ne ñi ngi jàkkaaroo ñun di ñu seetaan waxam ji mu wax nag nañ ci jëlee jàngat kenn ku ci nekk rek fa nga nekk na nga ci jàngat bu la fekkee ci lu baax nga yokk ko bu la fekkee ci safaan baat nga nga bàyyi ko ndax moom doon kilifa ba pare. nangoo liggéey te yàqalu ko dara ci jaamu yàlla ak liggéeyu këram kon nan ko roy 8 mars tey fii la leen dikkaloon ci soxna Jóoba Mbàkke fii ci xayra euh, képp koo xam ne bëgg nga ci bagage bi muy jaay nag dinañ jaarale numéro téléphone bi ci étiquette bi nga fekk leen fii ci xayra kër Sëñ Fallou Fall Mbawar boo fi dikkee lépp lu waay soxla danga ko fi fekk kon nag ngeen xaaraat ñu ci beneen jigéen ci 8 mars ndax dëkk bu sell bi di tubaa ay liggéeykat rekk fi ne te Sëriñ tubaa rekk a tax ñu koy def jërëjëf